es moom na ma si waaye mën a jàppale rek ma jël parce que man def naa lu nekk fu nekk dem naa fa waaye a ma fa gis fexe ba gis sama papa. parce que sama yaay lu ma doon wax si sama papa mooy sama papa moom da daan voyage rek moom fu ñu ko woo liggéey rek day dem. dama ko bëgg gis dama ko bëgg gis parce que dama koo soxla si sama sëy bi pour mu jàppale ma ci bëgg naa kaa gis torop manqué na ma wallaahi metti na ma. papa bu fekkee yaa may dégg yaa ngi ci dëkk bi di dund ñëw nga jël si sa doom parce que da laa soxla.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 amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp boo seetee seex mu dindi la ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp la leer mën ngaa yi muy 78 397 65 93 78 397 65 93. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu siiwur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu sunu kilifa diine yi sunu kilifa aada yi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi sunu borom dolli jàmm. di ñaanal ñi nga xamante ne dañoo tëdd ci loolu hôpital yàlla na leen yàlla yëkkati di ñaanal ñi nga xam ne yàlla da leen a jël yàlla na leen yàlla yërëm te leen te xaar leen àjjana di ñaanal ñi nga xamante ne dañu nekk ci prison yi yaa na leen yàlla defal jàmm te may leen indépendance ñaan yàlla sunu borom feet bii ñu jëm muy tabaski yàlla nañu sunu borom may ñu fekkee ko ci jàmm dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilah. Euh, tey nag ñu seeti suñu benn jigéen mu di Kiné ñu gën ko xam ci Fatou Kiné fas yéene Cheikh ak moom waxtaan ndax doon na jigéen boo xam ne jigéen bu jàmbaar jigéen boo xam ne euh, li muy dund bariwul sax góor ñoo xam ne attan nañ ko di ko dund parce que bi nga juddoo ba toll nii mosoo gis sa papa. xamoo sa papa déggoo sa mu soo xam ci lan la nekk xamoo day dund xamoo dundul yàlla sunu borom may ko courage boole kook borom kër gu baax mu koy encouragé di ko jàppale ba jusqu'à présent tegul ki nga xamante ne mooy woy juróom bët fas yéene Cheikh ak moom waxtaan ki ne dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñu lay suivre. maa ngi mu mel ni dafa am loo xamante ne nii yaa ngi koy dund. donte nit ku ci nekk am nga jaar-jaar nit ku ci nekk tamit am nga tolluwaay. Mhm. mu am loo xam ne nii yaa ngi koy dund. Mhm. Euh, tey naka ngay dundee sa absence su waajur. ah métti na moom trop moom ma dëgg fa neex parce que yàlla moom daf maa jox sama waajur bu jigéen jox ma waajur bu góor te mu bokk si loo xamante ne mm, képp kuy dund bokk si bokk na tamit si lu la gënal te yàlla dafa def ne man nekk naa sama waajur bu jigéen mais nekkuma sama waajur bu góor. te donte nag xamuma ko ma bokk na ci tamit lu ma metti te sama sañoon tamit man ma man ma gis ko nag ma mën a nekk. d'accord depuis ñaata at ba tey yaa ngi wër. mën naa ne sax depuis ba ma nekkee liir la ba tey parce que man xamuma ko. ba mhm. ni ma màggee nii am naa jëkkër ba am ñaari doom mënuma fexe ba gis sama pap mhm. xàmmee sax defuma ko mësuma koo gis. amuloo benn euh, information ci moom. aw ma moom benn information. aw ma ci si moom. Mhm. Mhm. moom mu ngi si dëkk bi mu ngi dund. Mhm. daal lañ may wax. ñu ngi lay wax ne mu ngi si dëkk bi mu ngi dund. te boobu tey tamit amuloo ci benn nouvelle. aw benn nouvelle. d' accord euh, ci yan yan yan yan yan yan démarche ngay def pour mën a gis say es moom nu ma si waaye mën a jàppale rek ma jël parce que man def naa lu nekk fu nekk dem naa fa waaye mënuma fa gis fexe ba gis sama papa dëkkam gi ñu ne Pout sol naa sama dàll dem naa ba foofu am na ay maire yu ma fa dajeel doon doon laaj mais dañu ne ma tant que euh, aw ma numéro ñoom du mën a xam ban Babacar laay wër foofu te teg ñu ne bu fekkante ba aw ma photoom duñ ñoom duñ ko mën a xam wër naa foofu tamit Pout foofu wër naa ba sonn. mais ma fexe ba gis sama papa si laa ñibbisi ba ma ñibbisee waatee ma laaj sama yaay ne ko sama papa moom fa la doon liggéeyee mu ne ma moom mécanicien bota la soudeur fii la nekkoon fii port foofu la doon liggéeyee man tamit si laa solaat sama dàll ma demaat ba poor wër foofu ba sonn mool un ma wër foofu ba sonn mënuma ba gis ma ma ma jógee mool un ma demaat mool deux ma wëraat foofu ba sonn parce que foofu mool yi dañoo bari moom wër foofu ba sonn ma mool wit daal dañ ma mujjee tegtal waaye mujj ma fexe ba xam foofu sans papa ba xam ne côté boobu la nekk wër naa ba sonn gisuma ko. ndax ndax wër bi tamit yomboon na ci koo xamante ni amoo photom amoo benn nouvelle am. ah métti woon na parce que man aw ma photom aw ma dara loo xam ne tey jii mën na yomb bu mu mën see gis sama papa métti na. Mm-hmm. ndax am nga ñoo xam ne doon nañ la jàppale ci wër bi. Ah, du kenn koo xamante ne mu ma siy jàppale parce que man sama jaaxle si sama famille yaay lay dem di leen expliquer si sama mbiru papa bi pour ñu jàppale ma mais dañ may xamal ne ma sama sama papa nit ko baax la loolu daal lañ may wax mu ngi fi daal mais dañ may xamal ne ma lu bari man ma waxtaan ci ak sama yaay loolu daal lañ may wax te heure ma jaaxlee damay dem si sama yaay pour mu jàppale mais sama yaay nangu maa wax dara loo xamante ne leer na si sama bopp. lan nga jàpp ni moo tax sa yaay nangu laa wax dara lu jëm ci sa côté papa. parce xaw ma tax man sama yaay di ma nëbb si sama mbiri papa lenn te man sama sañoon tey jii moom won ma ko parce que tey jii moom lu mu sekkal sama papa ñoom ñoom ñaar la man sama yoon nekkul si waaye man sama papa rek laa bëgg gis. fu ma toll ne sama papa rek. Mhm. rek laa bëgg a gis. Mhm. ci yan moment nga sentir sa absence su papa bi nga nekkee xale wala am na loo xam ne jotoon nga koo dund ak moom. man sama jot jotuma dund ak moom lenn man xaw ma ko xamuma ko. xamuloo ko. Mm. sama yaay rek laa nekk ak sama maam. Mhm. d'accord am nga ay doomu baay wala ay frère ak ay sœur. am naa ay doomu baay sama maam Mbathio moom ma ko wax nee na ma sama doomu baay ñoom ay laakkat lañ seen yaay fii la nekk Casamance avant mu doon dem sax ñoom ñu ngi woon fii Pikine seen yaay foofu la nekkoon mais est-ce que ñoom ba mu leen di mujjee gis loolu yàgg na ba mu leen di laajte sax dañoo ne ñoom dañoo dem seen dëkk te sama doomu baay yooyu sax moo tax may gën a sonn pour bëgg leen a gis. sa doomu baay. samay doomu baay yooyu. ndax yaa ngi doon def ay démarches ci sa doomu baay yooyu pour jéem a trouver sa papa. Mhm. lu nekk tamit man maa ngi koy def sama affaire doomu baay yooyu mais mënuma fexe ba gis ko ñoom tamit donte maa ngi sonn sama mbiru papa bi tamit sama doomu baay tamit noonu mais mënuma fexe tamit ba gis si ñoom si lenn. Mhm. aw ma benn preuve koo xamante ne tey mën naa ko am si ñoom. Mhm. su ma gisoon tey samay doomu baay rek sama papa yaakaar naa dina ma yomb. ndax yaa ngi doon dem ku ne xam na senegal dafa am ay aada ak ay tradition ci ci yenn ci sëriñ yi wala seetkat yi ñu lay jéem a xoolal sa papa ci yenn condition la nekk. waaw dama doon dem di def ay ñaan sama diggante ak sama papa mais ci ku ma mujjee dem muy Oustaz moom dafa ma xamal ne ma sama papa moom mu ngi dund. sama papa mu ngi dund soriwu ma mu ngi fii jege na ma torop te bëgg na maa gis tamit na nee na man ni ma koy wëree nii moom tamit noonu la may wëree. waaye nee na moom daal affaire si sama yaay la loolu daal la ma wax. lan nga jàpp ni moo tax sa yaay ba tey mu dëgg bal bi nanguwu la wax qu'est-ce sa se lan moo nekk ci sa diggante ak sa papa ba mënoo koo gis. ah man xaw ma man lu nekk maa ngi koy def si sama yaay lu nekk maa ngi koy laaj waaye moom nangu maa wax man xaw ma lan la may nëbb mais nangu maa wax dara. nangu dara est que tamit euh, tey waxtaan ngeen ci à 100 pour cent ba boo xoolee am na foo xam ne jot nga fa jaar yaakaar naa marié nga ci moment yooyu noonu tamit est-ce que jëloo ci ay décision avant ko ñu lay maye pour nga waxtaan ci ak sa yaay. man sama yaay dama ko doon wax ne ko man tant que gisuma sama papa du ma sëy parce que sama papa rek moom moom mun a maye su ko defee moom ma dem sëy lu nekk maa ngi si doon waxtaan ak moom mais ba ma demee ba sonn di daj lu métti sama diggante si sama yaay ak kër ga ma nekkoon daa xam ne taaru jigéen sëy la il faut ma dem ma sëy la su ko defee tey jii sama coono mën na ma wàcc sama jëkkër dina ma dimbale. kër gi nga nekkoon ça veut dire da nga fa nekkoon ak ay jàmbur wala da nga fa nekkoon ci yan condition nga nekkee foofu ba fay dund lu métti. foofu samay mbokk yaay laa fa nekkaloon mooy sama maam bu ju sama yaay foofu laa nekkoon. Mhm. man na sama maam moo ma yar moom bëggut dara lu ma metti man moom daal laa nekkuloon foofu. Mhm. foofu ku ah. doon def lu ma metti wala mu may naqara sax. da koy metti bëggul kenn ku ma laal. Mm-hmm. moo tax kara moom doon def émission boobu moom tam da ciy ànd ak man. Mm-hmm. jàppale ma. donte ba ma ko defee sax ñu ko ciy wax lu nekk moom sama maam. waaye ba tey taxul mu bàyyi ma. Mm-hmm. mais ñu ngi sa xelam. d'accord nga am di sëy euh, moment yi ñu lay mayee ndax yomboon na sa absence su papa ñu lay maye xam nga gisoo ko xamoo ci lan la nekk moment yooy na nan nga ko doon dundee. yombutoon parce que dafa metti parce que man su ma sañoon tey jii man sama papa rek moom moo may maye ku moom tey du ma nangu keneen ku may maye ku moom mais xëy na nag may gëm ndogol yàlla ma xam ne tey jii lépp tey si yàlla la jógee dama koy muñ mais du tee tamit man sama papa ndax mu ngi dund dama war si moom yëpp man dinaa ko def te dinaa ko seet ba ma demee ba gën a jaaxle si laa dem si sama xarit papa ba bu ñu boole loon mi pàccaam dum ci kooku laa dem te maa ngi doon liggéey kanam ama ma dem ma expliqué ko nekk ko am ku ma bëgganteel te ndax xam ma sama papa tey sama xayte papa nga damaa bëggoon pour nga boole ñu suñu diggante pour nga mun ñoo maye. d'accord bu ñàkk ay moment yoo xam ne yaa ngi koy dund euh, soxla ci sa papa euh, mu wéet mu wéet euh, ça veut dire yoo xam ne yaa ngi koy dund soxla ci sa papa te mu manqué la. sama papa tamit manqué na ma torop parce que man tamit soxla naa ko. Mhm. manqué na ma waaw. Mhm. Mhm. Eh, ndax yaa ngi doon dem ci rajo yi wala ci télévision yi ah, li ci mel ni ay xalaas ak ay tës di def ay démarches pour jéem a sa papa. waa tës moom benn yoon laa fa mosoon dem mais ba ma fa demee ñoom jëluñu ma damaa dem ci bunt bi ma daje fa kooku Mouhamed la tudd ma dajeeg moom ci bunt bi ma expliqué ko sama cas pour mu jàppale ma sama mbiri papa mais daf ma ne il faut ma ànd ak sama yaay loolu la ma wax ma ne ko am ah, na si laa ñëw expliqué ko sama yaay bi nekk pour ñu dem. pour ñu dem test pour mën a wax sama affaire papa parce que rek moom moom moom moo ci mën a jàppale daal parce que moom ma gën a xam lépp parce que man xamuma ci dara mu xam ne moom mënut a dem test. si laa gën a jaaxle nag man ne ko man insi bi kon man ma mënut def rek dina ma ko jaral moom ma dem defi ji ko. bi nga demee foofu ci beneen nouvelle. boobu ba tey amaatuma benn nouvelle damay nekk di jaabante rek mais duma ci am benn nouvelle. karag laa toog sama benn rakk yaay ñëw fii sama néeg ne ma gis naa sa papa. gis na sa papa. waaw noonu la ma wax ma kontaan ci nag lu nekk ma koy def fu nekk may dugg jour ba woo naa sama jëkkër sax ne ko sama rakku bi nee na moom gis na sa sama papa ma ah, loolu moom neex na léegi xam ñuy def dañuy dem mu wax la dëgg sa papa léegi fu mu nekk. si laa woon Ndayaada ba mu ñëw ma ne ko ba mu ne ma naa ma ne ko léegi yow sama fan nga ko gis mun ma sama ma sa papa ba ma doon dem di jëli Kélémante fee jëm ñaajo si laa ko gis foofu muy liggéey soudeur. ma ne ko yow léegi ba nga ko gisee léegi yow nan nga def woowoo ko ba mu ñëw xamal ne ko yow doom sa doom mu ngi lay seet mu ne ko waxuma ko dara dama ko bàyyi noonu rek ma xam ne xàmmee naa ko moom la si laa romb daal di dem si laa ne ne kii ne nañ dem nga sa papa mu ngi jëm ñaajo léegi nag Ousmane tombé sama jëkkër bi expliqué naa ko loolu moom tam xelam mu ngi tuul lan dam ne bu fekkoon tey loolu dafa am moom ndayaari ci boppam mooy xëcc sama papa xamal ne ko doom bi di kinne moom mu ngi koy seet waaye bu fekkoon tey da kaa gis bàyyi ko noonu loolu bokk si tey suñu lu ñu gënal daal si laa ko expliqué sama jëkk sama jëkk ànd ci ak man daal di sol dàllam jour boobu sax moom moo ne man ma toog ba ma toogee moom moo sol dàllam suba teel mu xëy dem jëm ñaajo mu dem foofu mu laajte si soudeur yi foofu ba sonn Babacar Gueye mais nangu ko wax sans foofu la nekk. lan nga jàpp ni moo tax ñoom ñuy gisanteeg sa papa ci mbedd mi te yow nanguwuñ nga gis sa papa lan nga yaakaar ni moo tax. man xaw ma lan la sax man xaw ma lan lan moo tax ñoom ñu may nëbb si sama papa lenn parce que man sama kaa papa bokk na tamit si lu ma jaxase su ma soñoon tamit ñu toog ñu wax ma dëgg man dëgg bi rek laa bëgg a xam su ko defee man ma xam fu ma féetee man sama àddina rek sama papa rek moo bokk tamit ci lu ma gën a metti si te tey jii laa ko gën a soxla si sama sëy bi. Mm-hmm. kon sa sëy da nga cee wéet à cause sa absence su papa. dama cee wéet donte nekk naa si sama yaay mais. sama papa sori na ma ci nag lu tax ma ne nekk naa si sama yaay sama yaay mu fii jege na ma mu ngi may ñaanal si sama sëy mais sama papa gisuma ko te du ma mën a ñaanal man tey jii su ma soñoon tey sama papa toog sama wet di xam si lu ma nekk dina bokk tam si lu ma gënal di ma jàppale si sama sëy. ndax boo gisoon sa papa di ko xàmmee. su ma gisoon sama papa duma ko xàmmee de ma ko gisoon duma ko xam parce que man suma koo gis mosuma koo gis. bu fekkee mosoon naa kaa gis benn yoon sax ma ne waaye waaye man mosuma koo gis xamuma ko. du ci ay amul sax ci ay mandarga ay photo wala yoo xam ne mos nañ laa wan ne la kii mooy sa papa. sama maam moo amoon photo mu wax ma ko nag ma ne ko léegi dangay génne génnee sa bagage sa armoire bi léegi nga génne ma sama photo papa ma ne ma ma mun koo gis. bu fekkee mënu ma koo gis jaxaral ni sax man ma gis ko ab photo nag ma mën a am souvenir am mënu ma dinaa la ko xoolal. ba moo ñëwaatee ma ne ko maam gis nga foto bi mu ne ma man gisuma ko tey ji moom su ma joxoon foto bi ma dinaa ko teg ci télé ñu jàppale ma ci ma mën a gis sama papa waaye du dara awma benn souvenir am du dara sama yaay mi sax maa ngi ko laaj sama photo papa waaye moom du wax dama ci wax dara awma ci benn nouvelle si sama papa loo xamante mu ma ko ciy jox lu dul gisuma ko ma ci lu mu nekk mm-hmm. loolu daal la may wax mm-hmm. tey du ñàkk loo xamante ni yaa ngi koy dund au parce que ku nekk boo sañoon euh, di nga toog gisanteeg say wayjur wala nga xam ci lan la ñu nekk tey ngay dund moment yu difficile toog gisoo sa wayjur xamoo ci lan lay nekk moment yooyu nga xam ne dalay métti nan nga koy dundee. daf maa métti kay man ku xamante ne tey jii sama mbiru papa bi rek bokk na tey ci li ma métti sama sañoon man ma nekk ak ñoom mais du dara métti na ma torop moom manqué na ma manqué na tamit si sama dund manqué na ma torop. sama yaay nag ins bi loolu lay bañ a dégg bu jógee naan ma waa am na ñoo xam ne seen papa dee nañu wala seen papa ñoom gisuñu ko taxu ñu ngi toog di sant yàlla ma ne ko waaye dafa bokkul nit yëpp yemuñu man tey ji sama papa tey bu dee woon tey jii damay gëm ndogal yàlla ma xam ne sama papa dee na tey ji lu tax ma ci gën a sonn mooy sama papa moom mu ngi dund xamuma ci lu mu nekk moom tam xamu xamu su man ci la laa nekk bëgg naa kaa gis moom tam bëgg na maa gis loolu may problème bi ins bi mu doon ay moment yoo xam ne yu metti la nga koy dund aussi. bokk na tamit ci lu ma métti maa ngi koy dund billaahi. Mm-hmm. man sama benn xarit bu ñu naan a wax kooku rek a ma xam moom bu toogee daf ma naan kii ne ma naa mun ma lan rek laa xam ne am na lu la métti lu la manqué muy sa papa. ma ne ko yow nag kon rek yow rek yaa ma xam parce que man sama papa jamono bu ma toll nii boole moo ko indi woon léegi dina bokk ci lu ma gënal. dama ko bëgg a gis. dama koo bëgg a gis parce que dama koo soxla si sama sëy bi pour mu jàppale ma ci bëgg naa kaa gis torop manqué na ma wallaahi metti na ma. ndax dina yomb pour nga dund nii sans sa waajur xamoo ci lan la nekk. du yomb parce man xaw ma ci dara man es bi wallaahi damaa sonn rek mais xaw ma sama papa dara ci lu mu nekk sama yaay rek ma ma ci war a jàppale. Mhm. Mhm. te sa yaay soo ko waxee moom du la ci nangoo wax dara. sama yaay su ma ko laajee dama ci nangoo wax dara ñu du naan xool ko ci diw gisut baayam ak yooyu ma ne ko man duma ci xool ci diw ci kenn parce que d'accord naa ni cas yi fépp la mais tamit métit bi tamit fépp la mais tamit sama papa ba ma ko wonoon xëy na tamit li may dund nii duma ko dund parce que mën naa ne tey jii la ma metti yëpp ci côté moom moom ma ko teg parce que tey su ma wonoon tey sama lii yëpp tey duma ci yees ak moom. li may dund duma ko dund mu mel ni am na loo xam ne kon yaa ngi koy dund au fond du cœur mu naqari la. am na lu may dund lu metti loo xamante ne tey ji mënu ma ko wax ñëpp mu ngi ma metti te dama ne man sama papa mooy sama xarit comme tey sama yaay lu mu nekkee sama xarit sama maa ngi koy seet gisuma ko de mais sama xarit la. tey jii su ma ko gisoon tey jii mun naa ne tey lépp lu may méttitalu man si man si sama àdduna mun na saafara na sama papa rek laa ci yaakaar pour mu dimbale ma ci. Mhm. Euh, ci sa côté maam ndax toog ngeen ci waxtaan ba mu xamal la sa papa ak seen condition la nekk ndax am na ci yow cofeel sa maam tamit kon damay wax sama yaay rek moom naa koy wax damay toog di ko xamal ne ko sama papa moom ci lu mu nekk ak yooyu mu xamal ne ma papa sa papa mu ngi fii am na benn jour sax mu ngi doon wax sama yaay ndax ko ndaxam Arafat Looba bi am naa fa ay mbokk sama mbokk papa yi fa nekk mënu ko yërëmal xale bi te yàlla rek a tax nga won ko ay mbokk papa mu nekk fii ci Arafat Lawbe bi sama yaay tamit dégg sama wax maam jooju nu mu ko wax mu ànd ak man ñu dem ba ci Arafat loobe bi mu ne ma bopp bi foofu la sa papa mbokk mi dëkk mu ne ko léegi ma ne ko léegi kër gi fan la mu ma kër gi dama koo fàtte moom sama yaay loolu la ma wax ma découragé jour boobu ma am na ma metti si laa jël sama oto daal di ñibbisi tembe joroo balaa may jël oto sax jotoon naa laajte foofu mais gisuma ci laa jël sama oto daal di ñibbisi ma xam ne tey jii ndaxam moom xam na fa sama mbokk papa yi fu mu nekk te ñëw nañ ba foofu te nangu maa wax ne fii la dudul kër gi dama kaa fàtte léegi man na ko léegi tuur ñu fa dëkk ñan la mun a xamatuma seen tuur dama koo fàtte na foofu dama faa gëj loolu daal la ma wax mhm. ci ay côté mairie aussi tamit ak côté police yaa ngi ci doon def ay démarches xool sa papa fi mu fi mu dëkk ak fi mu cosaanoo pour mën ci moom am ci moom ay nouvelles waaw man affaire police yooyu sax man dañ ma ko doon tere ne bu ma ko def bu ma ko def moo tax tamit man insi bi ma ne ma il faut ma arrêté ko nag su ma ko defee dañuy yaakaar damay wëdd yàq sama deru yaay ak yooyu fekk man dox ma si yooyu sama papa rek laa bëgg a gis. ñu ngi lay encouragé parce que jigéen ko yaa ngi dund moment yu difficile tamit yoo xam ni góor sax pour mu dund ko euh, day xaw a jafe mais ñu ngi lay encouragé bu baax a baax di la ñaanal euh, sa waajur wi ngay wër. yàlla na la ko suñu borom niital ndax moom mooy nit moo yor guddi moo yor bëccëg tey ban message ngay lancé sa papa donte mu ngi jàkkaarloog yow di la seetaan. damay xamal sama papa bu fekkee moom mu ngi ci dëkk ba di dund comme ni ñu ko waxee man tam man doomam muy Kinde mii man maa ngi dund di ko seet comme nu may seetee di ko xamal papa bëgg naa laa gis torop moom tamit fu mu munti nekk na xam ne ma soxla naa ko si sama àdduna gi ma nekk na ñëw mu seet si ma na ma mën a nekk parce que moom tànk que gisuma ko du ma mën a nekk papa bu fekkee yaa ngi may dégg yaa ngi ci dëkk bi di dund ñëw nga jël ci sa doom parce que dalaa soxla papa lu nekk def naa ko ci sama àdduna bu mëgg laa gis mënu ma fexe ba gis la bu fekkee yaa ngi fi soxla naa la torop ñëw nga jël ci ma parce que dama laa soxla manqué nga ma torop ci sama àdduna mhm. d'accord jërëjëf euh, mbokk yi nga xamante ni yéen a àndoon ak ñun euh, du ñu siiwur metti na trop moment yi nii nga koy dund ndax ku ne xam na absence su waajur tey boo xamoon sa jur sax ci lan la nekk su boobaa di nga xam waaye ñàkk waajur tamit sax di nga xam ne sama jur ci lii lan la nekk mais est-ce que tamit wax nañ la ni sa jur ak sa papa. ak sa sa yaay ak sa papa ñu ngi sëy ba tey wala amoo ci benn benn inform benn information. sama yaay sama papa ñoom dañ doon sëy dañoo bàyyante parce que sama yaay li ma doon wax si sama papa mooy sama papa moom da daan voyage rek moom fu ñu ko woo liggéey rek day dem xamul ñibbisi moom loolu rek la xam day dem rek moom xamul ñëw nee na bokk na tamit ci lu ko métti moo tax mu bàyyante lu tax mu bàyyanteeg sama papa nee na loolu tamit bokk na ci. loolu da la ma wax. d'accord bon mu ngi noonu ñu ngi lay encourager bu baax a baax di wax képp koo xamante ni gis nga ko dina am numéro téléphone boo xam ne mu ngi noonu di daw ci régie bi boo ci wootee ah Fatou Kiné la tudd ñu ngi ñaan képp koo xamante ni yaa ngi seetaan émission bi kii toog jàkkaarloog yéen mu ngi tudd Kiné ñu naan ko Fatou ne yaayam tudd faatu Ba papam tudd Babacar ñu ngi dëkkoon pikin jógee fa actuellement ñu ngi ñëw fii Kër mosaar Sotorak ci garage bi nga xamante ni moom la ñuy wax garage su Mame mhm. képp koo xamante ni yaa ngi seddaan émission bi ah boo gisee kii nga xamante ni mooy Babacar soxnaam tudd faatu Ba doomam ji tudd Kiné ñu naan ko Fat Kiné ñu ngi ñaan ah képp koo xamante ni gis nga ko woy juróom nag mosuñoo gis photo am waaye soudeur métallique la. donc képp koo xamante ni gis nga ko rek boo ñëwee fii Sotrac wala boo foo mën a dem rek wala boo contacter service commercial people 221 bi ak numéro boobu di affiché incha allahu bi ah ngalawaay jàppale ko pour mu gis doomam parce que tamit waajur baa ngi koy wër doom jaa ngi koy wër ah ñu ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni mooy nit asamaan ak suuf yàlla na la niital sa jur ba nga gis ko mm. kontaan nañ tey lan ngay jeexale ak lan ngay tàggatoo aussi. ah sant di gërëm yéen ñi xamante ne yéen a sew wu ñëw di ma jàppale ngeen mën a pour ma mën a gis sama papa maa ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla pour mu fayal leen ci li ngeen may jàppale di ñaan yàlla nag képp ki may seetaan te mu metti la torop nag ci sama mbiru papa bi maa ngi ñaan yàlla nga bàyyi lépp fa seen maa jàppale ngir ma mën a gis sama papa képp ku sama mbokk papa da nga xamante ne séeréer nga. dama sama papa séeréeri saafen la mu ngi dëkkee fii ci Pout mais dakaar gi la bëri ci lu muy liggéey maa ngi ñaan yàlla képp ku gis lii nag ma jàppale te yàlla rek a tax ngir ma mën a gis sama papa. tamit di leen di ñaanal yéen tamit seen liggéey gi li ngeen ci bëgg yal na leen ko yàlla defal yàlla fay leen. di ñaan yàlla tamit si déplacement bi tamit ni ngeen def nii tamit lépp dafa metti naaj bi tàng bi. ñoo ko bokk yal leen yàlla fay bu baax. donc mu ngi noonu ah, di gërëm sama jigéen borom wasaare ak ak xalil xalil xalil xalil sunu frère waaye di gërëm mbenn mi nga xamante ni tamit jàppale nañu ci liggéey bi yombalal nañu aussi tamit ci ñëw bi fii di leen ñaanal jàmm di leen jox yeneen dig daje ci suneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf Serigne Cheikh Konté yi ñu gën koo dina ñaan dina seet boole si faj ba mu wér waaw waaw lu jafee gis faj ba mu wér laa la wax de déglu ma bu baax mbokk mi ma wax la seex feebar ya muy faj yaw mi am jabet bañ ñi la du wér demal nga seeti seex yow mi amee feebaru AVC ba paralysé demal nga seeti Cheikh yow mi amee tànk yu miti demal nga seeti Cheikh mu tànk tàggale la ak moom yow mi amee prostate demal nga seeti seex nga amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la moom nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp boo seetee seex mu dindi la ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd